di leen ziar rek moo xam ci Lutte TV la wala Leewtoo TV 100 pour la ñu wax ci foofu tey nag ñu ngi nii parcelle unité 11 jàkkaarloo Xaadim Gajaga fan yi ay coow jóg fi ci diggante wala boog ci biir Rock Énergie dégg nañ tëggkat yi ñu ne wax nañu dégg nañ mbër yi wax nañu aj nañu écrit bi Cheikh Sow wax na ku ne wax na a ah, ñu jëm ci AG nag dimanche le 19 Xaadim Gajaga liñ lay njëkk dañ lay njëkk nuyu ba pare bala laax si weeru koor gi. waaw ba Babacar maa ngi lay nuyu di baalu àq euh, Sénégal yëpp di la nuyu yàgg Lamine di rafetlu seen teew mais nag lenn rek laa gis ci wax ji loo xam ne xaw na ma tik tuuti mooy problème amul Rock Énergie problème amu fi coow amu fi jàmm fi am ñi nga fekk nii ñëpp ci jàmm lañ nekk Cheikh Sow démb man maa la ko jox téléphone ngeen wax. mu ne la xaarim sama jarbaat la donc problème amu fi mais kër goo gis dina dem moment boo xam ne ku ci nekk da nga lañ la woowaat nag jàjjiwaat la defaraat la pour nga gën a mën a taxaw Rock Énergie day doon écrit bu mag la ñun ñu ne ci bëre ci bëre ci bëre ci ba lépp lu ñu am Rock Énergie moo ñu ko may salle bi nga gis am na ñu ci nekkoon ñoo xam ne bëreetuñu mais Rock Énergie bëre nañ ci làmp ba teg seen làmp ngemb am na mbër yoo xam ne ñu ngi ci doog a door am na ci ay champion yoo xam ne tey jii ñu ngi ci làmb ji kenn mënu leen itam ñu ngi fi muy ñëpp kenn amu ci problème ndax réunion nañ trois réunion mbër yi ñoom ñoo jóg ne dañu bëgg ku leen taxawaat seen écurie jàppale seen Rock Énergie ñun ñii ñëpp ku ci ne am na lu la war loo waroon def Rock Énergie defoo ko man keroog ba mu démission démissionné association des lutteurs nee na ñaari activité moo ma dese mooy jàppale Rock Énergie ak tamit jàpp nekk sama politique ak sama liggéey bi nga xam ne tey jii moom laay suturloo mbëri nag ñoom ñoo dajaloo depuis lors woo ma ne man xaarim dañu bëgg nga ñëw jàppale ñu. man euh, non dogguma la c'est que bon problème amul li ñu tuddee problème mooy bu ñu xëyee ne Rock si aj nañu ko. am nga bu ñu aj nañu écrit bi mbër yi am nañ problème mu combat ñu xëy xëy dégg ne tëggkat yi réclamé ne ñoom liñ leen di jox gisuñu ci bopp. ak yeneen ak yeneen loolu est-ce que du problème xaadim loolu Babacar loolu wax bu yàqu la rek Moussa Yacine miy tëgg mi ngi ne Moussa Yacine kenn dégg ko mu wax Modou loo wax bu ñaaw. kan moo wax kon. xam nga boo duggee biir unité 10 wala nga romb biir unité 11 nga ne naw diw romb naa benn xale mu ne Moussa Yacine nee na nangam ak nangam Moussa Yacine a ngi nii après nga jël ko amul lu mu yàgg wax Modou Modou Lo léegi nii nii yaa ngi dégg dafa ne dafa bëgg a déglu émission bi li ñuy waxtaan ni mooy réunion bi da ko bëgg dund en live and direct. mi ngi toog di gis di dégg li ñuy wax Modou ak ñi fi toog ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay li may wax ci àdduna kenn deful kenn dara lu waaye def boppam moom lu mu am dafa nànk rek Babacar xam nga topp nga fan yu ne woo nga ma pour ma wax. dañu bëgg sénégalais la ñu bëgg ñu xam Babacar woowu la ngir wala Lamine ngir suñu interview dañ la woo pour population sénégalais bi. bëgg leen wax Rock Énergie Rock Énergie dafa am fu mu door Babacar Rock Énergie dafa am fu mu dooree. rock énergie rock énergie ñun ñun dañ fi nekkoon xale. jékki-jékki ñun ñoo taxawal rock énergie nekka laat ñoom Serigne Ndiaye ñun ñu fi toog nii ñoom Conke Sil ñoom daam ñoom euh, euh, Dolf ñoom Maîtrise ñun ñoo àndoon taxawal rock énergie ñoom Zos. ñu continuer di dem di dem ba ëmb suñuy rakk ba suñuy rakk juddu ba di def suñuy fierté Modou Lo Garga euh, Super Jamono Baye ñooñu juddu ci ñooñu bi ñu demee ba juddu ku ci ne def ko li nga war a def ñenn ñu tukki nañ di teral seen bopp mootloo Lo mi ngi taxaw téye flamme olympique nekk presque lutteur bi gën a siiw ci senegal mais dafa am rakkam yu topp ci ginnaawam war a doon ay Modou Lo yi Modou wala def lu Modou lu raw li Modou di def. lu taxoon ñu ay écrit bi ba mbëri mënuñu woon combat mbëri yu ndaw yi. xam nga tey jii loo gis rek waxtaan la xam nga tey ji waxtaan doo nekk di sulli ay problème li ñu def mooy dañu jub assemblée générale Cheikh Sow wax na la ko dem nee na la man par consensus. dañuy ànd ñun ñëpp lu liggéey nekkul xaarim la ñuy fal président parce que président man président commission laa ci maire bi conseil municipal la mais Rock Énergie jiitee goo ko de. waaw moom nga bëgg dégg na. non defal nànk xam nga tey ñii samay rakk lañ ku ci am combat bari nañ na ci am combat ñoo xam dañuy ñëw fi ma làmb samay dëm ak samay dimbali leen tey jii ñoom ñëpp lu leen neex mën nañ ma ko xam moo yëkk ni léegi la ne ma xaarim Khadim ga yow li ngay def yëpp Rock Énergie nga ko war a def wax na dëgg. da ngay def lu génne Rock Énergie non dama li may jàppale yeneen association yi ak coono yi may daj ci feneen nee na ma danga ko war a daj ci ñun parce que moom mi ngi nii douze combats douze victoire wëral làmb ji doo ko gis fi ñu toll nii Mor Yekini jël jël jël tournoi euh, RDV bëre première combat ba ba final kenn daanu ko daan ñëpp ñu pare ñu te ñu ngi koy jox ñëpp ay champion lañ ay laadum ay Tafa Ndiaye xale yi ne fii yëpp Zilo ñoo xam ne tey jii booy wax bëre dañ ko naan parce que bu ñuy bëre ak Modou Lo da nga naan ñii du ñoom ñooy bëre ay petit combat donc man dama ci am part de responsabilité mooy bu ñu ñëwee ba nañ ma grand dañoo bëgg kat ñu defaraat Cheikh saw man mii maa ko proposé woon Pape Mbaye maa ko fekk muy jaay ca marché ma ne ko kaay entraîné la écrit yëkkati sifflet ak kii jox ko mu def ci liggéey bu rëy grand Ndiouga Dia suñu grand la dëkk fi Ibou Diouf nekk magu Modou la waaye tamit dafa jaar équipe nationale Aliou Dione dëgg nekk fi nekk trois premier entraîneur bi nga xam ne ci francophonie moo fi raw donc nag li ñu def nii ñoom tey ji gëm naa ni tey ji Rock Énergie bu fi jógee nañ daan def tegale quatre années yoo xam ne dañuy jël paie dana am. yaa Cheikh Sow da ngeen a waxtaan ci Rock ba déggoo pour dimanche la 19 ñu war la fal nga nekk président wala. non xam nga tey ji moom bi mu ñëwee dafa ne woon dama waroon ñëw waxtaan ak moom bi affaire association des lutteurs jàllee. ba ñu waxee dafa ne ma kay jël rock énergie. waaw Cheikh Sow mu ne ma non kay jël rock wax na la ko yow wax na la ko. non yow waxal la Cheikh Sow wax rek. <laughs> dafa ne kaay jël rock ma ne ko man dama jóge ci association sonn bëgg am vie de famille tuuti bëgg tamit nekk ci sama liggéey ak liggéey politique xale yi tamit ñoom Serigne ñoom Serigne kii Ndiaye ak Laadum ak Aziz Gueye nokkos woo ma fi bis ne ma non dañu xaarim dañoo jógee dañu bëgg waxtaan ak yow ñëw sa kër laadu mii moo ma woo mi ngi ni toog ma ma ma gàntal ko parce que dama doon bañ chambouler affaire rock énergie ni muy doxee mais qui veut faire des omelettes cassera des œufs waaw ku bëgg a def omelette di nga toj ay nen léegi nag ñoom bu ñu ñëwee ñu ne ma la la la Stapha ne ma ñun dañ la bëgg a def suñu président nga jàppale ñu ma ne ko man kat loolu buñ ko bëggee acca nañ dem ma jàppale leen parce que li Mor Yékini nag mooy loolu de écrit bi bu ñu ñëwee ñu nekk benn juróom benn nit juróomi nit rek ñuy décider Khadim Gadiaga lu mu fa yàq moom la ñuy wax ñoom li ñu bëgg pour ma def ko il faut ñu changer li fi ne lépp defaraat ba champion yi génn léegi nag damay sant yàlla parce que tey man lu ma nekk mbërë ma ko def lu ma nekk rock énergie ma ko def maag maag bi ma bi ma Modou di fekk fii ànd ak Malick Diop mu jàpp ko ci loxoom indi ko fii maa ngi dëkk ci salon bi nekk ci suuf boobu grand combat laa doon bëre ñu ñuy boole man Modou Lo damay wutal ñaari mbër Modou ak Ndiaga Thioum comme li ko nekka wax ñun la bëreel ba am doole Modou ku ne ko yaa ko jàngal bëre dangay wax lu la neex. kon xaarima ko jàngal bëre ñoom tonke si. ñun ñii ñoo ko jàngal bëre ñun la daan bëreel ñu koy daan ba ci yàgg mu buñ ko daanee mu daan ñu ñu dem ba mënatuñu koo daan ñu xam ni mbër maa ngi ñun nag dañoo tooñ xale yi xam nga lu tax ñu tooñ leen parce que dañu jékki-jékki ñu bàyyi rek affaire bi di dérouler. moo tax euh, Cheikh Sow maa ngi koy gërëm waaye Cheikh Sow dama koy xamal nag ni mbir day dox wax na la ko nee na la non dañuy topp ci ginnaaw xaari mais ñun ñëpp ku ci ne képp koo xam ne munoo defal écurie bi munoo ko taxawul mu commencé ci man dañ lay jël teg nele yow sa candidature boobu ñu la demande ak yow ni nga xam da nga nekk candidat lool candidat pour dimanche da ngay dëggal lool pour jiite écurie. loolu écurie ñun suñu écurie amul kenn kuy jege fële parce que langue dafa complexe. daggee ca làng ga rek ne da ngay jiite Rock Énergie. daa amoon yeneen candidat yu bokkul ak Cheikh Sow ak yow na ma ne parcelle. Sénégal kenn amul fitam dagg ci làng ne da ñëw jiite Rock Énergie. ñun ñooy décider par consensus ba ne diw la ñuy jiital. benn doomu parcelle bu fi dëkk nag war a bëgg a joxe servir écurie bi. dama ne képp ku bëgg jiite écurie bi da ngay ñëw tey ji servir écurie ba ñu xam la parce que làmb dafa complexe. xanaa daam ñooy wax non damay wax ak Sénégal laa. tey ji am na mbégte bi ma am. réunion fii Amadou Ba ñëw na fi ku ne ñëw na fi mais mbégte gi ma am tey mosuma ko am dama koy wax ci média mbégte bii ma am mosuma parce que xam naa ni xale yi décidé nañ dama leen di wax na promoteur yi képp koo xam ne tëgg nga mbëru Rock Énergie leeral ni stade ba genn wàll bi yi dinañ ko jënd mbër promoteur yi laay waxal ñoom pap Abdou Fall ñoom euh, Assane Ndiaye. neel promoteur yëpp promoteur yëpp dama bëgg mbëru Rock Énergie ku ko tëgg ñëwal wax ak ñun ñooy ànd dem seeti. Euh, monsieur le maire Moussa Sy dem seeti Amadou Ba ne ko jëndal billet yi mbër miy bëri ji dañ koy sas ne ko demal daan ñëw fu ñuy regroupement yooyu léegi am nañ ko loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp. non non am nañ ko ci quelque part foo xam ne Modou ko am ak man. su ah da ngay am zone boo xam ne Modou ko lijjante yow suñuy yëfi bopp suñu kër bopp yoo xam ni. rock énergie nit waaw kër yi ay këru rock énergie lañ koy tuddee. nit mën fan la lagros la ne wala fan. waaw mu ngi ci dëkk bi rek. <laughs> mi ngi ci ngeen am dara lagros. mi ngi ci dëkk bi. mu doon contacté contre Balla Gaye. non Modou bii yoon laa la wax dama ne bu ñu daanee ba pare yéen ñëpp da ngeen a ñëw xam ni gars yi am nañ ci taxawaay bu bees bu ñu taxaw li nga xam nag ñii ñoo ko waral mbëri ngeen jox leen leen kaddu ñu sànni seeni kàddu kaddu lancer seen appel dimanche li ñuy def jàmm rek moo ñu tax a jóg histoire ñu amul lenn loo xam ne tamit lu ñuy jël lu ñu ma xam ne mën nañ ko jël ci Rock Énergie lu dul apporter ko ñu ngi woo bon volonté yi ne Parcelles Assainies yëpp ñu ñëw jàppale xale yi di woo képp koo xam ne mën nga apporter sa moyen mën nga apporter sa xam-xam nga ñëw na mu doon jëlee paie mu continuer jël paie ma leen di sas ñoom ñii ñu ngi toog ay xale yaru lañ gisuma ci ku ci tox ñu am jom lañ ñu am fula lañ ñu am fayda lañ jàppale rek la ñuy ñaan mais parcelle gi ndax si sant amu fi non loolu mos fi am loolu gis nii parcelle laa wax de parcelle. Ah, as parcelle bi yëpp ñoom ñëpp benn lañ. boo gisee bërki démb bi Garga Mbossé di bëre xale yëpp dem nañ ñoom Papa saw dem nañ boo gisee tamit Modou Lo buy bëre ñoom ñëpp ñoom Garga 2 ñoom Papa saw ñoom Yékini Junior mi dëkk HLM Grand bi di ñoom ñëpp ay ñëw xëy na dañ nekk ci entité mais ay doomu parcelle lañ. ñun ñëpp boo gisee ñu toog suñu ruq dañuy bañ ñu naan équipe bi dañ ko utiliser wala dañuy wax parce que man tey nëbbuma damay politique. waaw am na dama la koy wax ne dañ koo for ci mbed mi ci wewu bëy ñu ne xaadim moom fi mu ne lu koy gën a renforcer rek lay wër moo tax muy xaru ngi jiite bu doon ma bàyyi association des lutteurs foofu damay toog bu ma bëggee wax wax président yi toog yëpp wax des lutteurs bi ma bàyyee yow xam nga ni am na lu leen metti ñoom ñëpp kaas nañ ne bul bàyyi istu li may wax ni ci kii laa ko wax bi ma bàyyee muy Gris Bordeaux muy euh, ñoom Elton ñoom Akon lutteurs yi ñee ci group bi yëpp dañ ne woon dañuy woote réunion indi problème parce que waroo bàyyi waaw loolu moo ëpp doole Rock Énergie moo ko ëpp tur bu président yi toogee bu ñu nee président CNG waxal président amateur damay wax léegi loolu mënatuma ko waaye nag la nga Rock Énergie dama cee bokk sama yëf la fii laa bokk kenn mënu wuy mën wax la baax non xeex bi man wàcc pare naa ci association des lutteurs dama leen di accompagner léegi li ma dese li ma dese la ma waxoon ba may bàyyi li ma dese mooy jàppale Rock Énergie maa ngi lancé appel Amadou Ba ne ko Rock Énergie keesam gi trésorier bi ñu fiy teg amul dara lu mu ciy def na ko ñëpp yëg Moussa si subvention yi lu ko duble écrit bi kees gi dara amu fa. amul dërëm. ana li fa daan dugg. non yooyu yëpp ay duñ ci duñ ci. dañuy waxtaan nit ñee bëgg a xam. xam nga Lamine c'est pas le moment. mais Rock Énergie daal pour l'instant pour wax rek ni kees gi amul cent francs subvention daan na fi am yëpp daan na fi am mais bi ñu xoolee keroog réunion yi ñu mujjee def woo man woo trésorier bi ñu def état de lieux amul cent francs yi nekk ci kees gi. boîte pharmacie ni ngay gis ni muy réy nii boîte pharmacie amu fi amul boîte pharmacie mbër mbër muy bëre mbër muy bëre fi ñu toll nii ci Rock Énergie da ngay ko da ngay joxe 2000 ñu defaral la licence yooyu yëpp nag dañoo bëgg mu dakk dañoo bëgg tey ji autorité yi parcelles yi bu njëkk ba Modou ñëppay jàpp amul ay kii am xaalis kii amul xaalis as fans club yi dañu bëgg a boole fans club yëpp ñu doon fédération fans club bu laadum di bëre fans club Modou ni ñëw jàppale ko bu eh, eh, ko kii di bëre. kuy bëre eh, waaw bu. Aziz Nokos bu keneen di bëre ñoom. daam jàpp pas de problème. Moussa Yacine a ngi nii toog. Serigne Ndiaye ngi leen defal nànk rek Serigne Ndiaye ngi nii toog ñoom Ibou ñoom a ngi nii toog xale yëpp a ngi nii toog. képp koo xam ne yaa ngi bindati ci Rock Énergie ku ci bindati del bind loo xam. ah lees leen bindal nag yéen a ko wax. kenn sosalu leen fi nag xaadim yooyu tam. monsieur Yacine a ngi nii waxul loolu. ah wax ji dañ ne naar bu ndaw mu gàdd ga la ko koy teg ci télé. mais wax ko ni ñu ko waxal nii ko Modou Lo saa yu bëree combat bii passé génnee na ay millions joxe Rock Énergie. jox monsieur Yacine mu ngi jot xaalisam. monsieur moom Modou ay ñoo bokk nday bokk bàyyi. ndax mu ngi jot weccet. non déglul ma wax la monsieur Yacine suñu suñu bët géwal la monsieur Yacine bu ñu ko defalul sax moom tey day làmb poosam di defal suñu tur. kontaan nañ ci yow. jërëjëf. Moussa Yacine a ngi nii ba tey rek si Rock Énergie moom nag moom lañ ne woon moo wax wax ji maanaam mbërëm du ko jox ay koppar ñu ngi lay bëggee. waaw maa lay fay Babacar. wax ji ñu doon dégg fan yi ñu ne Moussa Yacine nee na daal gisul boppam ci tëgg bi muy tëggal moo Lo loolu say wax la wala nu mu demee noonu. waa Babacar maa ngi sant yàlla di si yonante bi di nuyu Sénégal gépp di gërëm samay waaj. loo xam ne wër na ko ne amu ci lan lu mu fu mu ko jëlee wala ay wax. kii bind woo nañ ko téléphone. mu ni moom bindul ni Moussa Yacine dafa ni mu dafa bon waa parcelle lañ dégg ñu ni Moussa Yacine ak Modou Lo affaire yooyu noonu mais bindul ni Moussa Yacine nee na Lamine kay moom moo toj carte gi ñëw. Lamine liggéeyam la def nag ko ci Moussa Yacine mais ba léegi même journaliste bi bind nee na moom waxul lool parce que moom man dégguma journaliste man xaw ma sax fu fu. yow liir nga journal. liir naa ko. man man xaw ma sax. Babacar bàyyi mu sedd man. sa digg non wooyu dañ non fii lu ndaw la lu ndaw la sa diggan sa digg non sa digganteeg Moodu dama ndax yaa ngi gis sa bopp ci tëgg mi. waaw yaa gis sa bopp. man ak Moodu sequñu ay ay gis nga xaalis boolewuñu ñi am problème ci ay xaalis day fekk xaalis boole leen man ak kooku xaalis lié wuñu dañuy ànd depuis boobu ba léegi te moom xam na ma man xam naa yaa ngi may dégg. nañ ñaan yàlla dañoo jublu si biis bu mag Lamine dañ ñaan yàlla suñu borom ma su suñu ndam. kii de nga ma koy tëggal Eumeu Sène. waaw Mor waaw. ku Mor xam naa bu baax sama waay la sama waay. la de. bon ku mën a tëgg sax. ku dàq tëgg. Mor. Mor na jël lépp. sa mbërëg mbërëm ku dàq ba yàlla incha allah. mu doog ku dàq bëri. Eumeu. kuy daan Modou. lu leer laa lay wax nii. ci kàddu gi Babacar si incha allah dinañ ko waxaat. assis ah, ma nag damaa nekk si réunion nga may duggal si leneen. ñu ngi ci euh, parcelle Père Ndiouga nag bokk na ci dirigeant yi entraîneur yi wala sax muy papa wala nijaay segri bi Père Ndiouga xaarim euh, nga jëg dégg nga li wax sànq loo ci yokk. waaw euh, Babacar maa lay nuyu di nuyu sa affectif bépp di leen ñaanal seen yàlla na nekk écran bi gën a ràññee ci àdduna bi monde bi bon li ma ci wax du bari xale yi seen pët pët moo ëpp seen. séduction man bëri naa ba bàyyi bëre bëri naa ba bàyyi bëre man benn combat jaaxlu ma benn lamb réyul ci man mais man dama dama dama dama baaxoo jox benn kàddu dama bëgg nga yor ma dafa gën a wóor dama laa bëgg a yor ki ne dama bëgg nga yor ma fi nga ko jaar lay jaar li nga ko sant lay def li nga ko tere lay bàyyi. mais ki nga bëgg ki nga ki nga laa bëgg yor ah ci li ko neex rek ngay wéy man na dama xamul ànd boobu parce que man man dañ ma formé ci ci personnalité man bëri naa ba teg sama ngemb man fi ma jaar benn booy jaaru fi ci booy yi amul. Khadim Gadji mën naa jiite Rock Énergie. mën na ko jiite capable na jiite sax lu dul Rock Énergie. da ngeen a pare pour da ngeen a pare pour jàppale ko pour dimanche mu jëlee. su ma su ma sañoon duñ dem sax élection. dañuy waxtaan suñu biir dañ ko dénk woon Cheikh saw ñu dénkaat ko Khadim Gadji ñu continuer suñu suñu liggéey bruit bañ am parce que Rock famille la coow mën naa bañ am parce que coow du am parce que Cheikh Sow bi ñu koy jox affaire bi dañ ko ko joxoon parce que mi ngi suñu biir bëgguñu affaire bi génn suñu biir ñu tënkoon ko jox kooko bi nee ba xool xam ne en vrai dire mënut a doxal lii ñu xool xalaat yëpp ne Khadim Gadji war na ko mën doxal ah mais kon ñun ñëpp dañoo war a bokk benn kàddu joxaat ko Khadim Gadji ñu parce que ñun dañ ne famille la bëgguñu mu génn Parcelles Assainies bëgguñu mu génn ci ñun kon nañ ko jox woon Cheikh Sow bu fekkee bëgg nañ lu rafet rek coow bañ a am buru bañ a am bu fekkee man li ma wax toujours dëgg la ñu ngi koy dund ñoom na famille la te man loolu laay dund dañ ko war a tënk rek jox ko xaalim Gadiaga élection bañ am buru bañ am dara bañ a am waaw man loolu boo sañoon loolu la ñuy def voilà waaw maa ngi nuyu Sénégal gépp nag